ngir gunge leen ci seen bëgg-bëgg digital store indi na leen ay xeetu smartphone ak i tablette sur Android yi mujj génne te xew ci jamono tablette Core te 4 smartphone Core X4 ak téléphone flottant Shark X3 di ay xeetu appareil yu yéeme te soppi doxalin yu dëgër te nangoo yàgg lool te li ci gën a doy waar ndox mënulu ko dara appareil yii ñuy ànd ak yéen fu ne boole ci du ñu ànd ak alarme bu leen di aar Crosscall di kër gi leen liggéey moom dong moo nangoo garantir ay appareil ci diiru ñetti at man ngeen a jokkoo ak ñun ci suñuy boutique showroom avenue Bourguiba 33 825 73 00 wala ci Soumbédioune sur la corniche 33 823 77 87 Digital Store améliorez votre quotidien ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laa ne waa mi naan électricité ak si nañ yow mi bëgg nag kaaraange moo xam sa biro sa kër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 xam taxawaayam ci yoon wi xam taxawaayam ci lislaam bi waaye xam it taxaw jëflanteem ci doomu aadama yi kon sëñ Souhaïbou ñu ngi lay ziar di la ndokkeel ndax waxtaan wi bu nu koy waxtaan boo gisee ñu sàkku sa teewaay mooy ni nga demee woon ak Serigne Saliou Mbacké ndax euh, bokk na ci bokk nga ci ñi mu yar bokk nga ci ñi mu tarbiya ni ko sëñ Abdou doon waxe léegi waaye bokk nga ci ñi ko gënoon a jege ñu bëggoon la laaj rek euh, bi Serigne Saliou ñëwee doon sëriñ Touba cinquième xalif général des Mourides ban taxawaay la amoon ci yoon wi ban taxawaay la amoon ci Touba ak euh, ni mu daan doxalee ak euh, doomu aadama yi. jërëjëf El Hadj Abdoulaye Lam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant tamit Serigne Habibou Diop. ci kàddu yu am solo yi nga xamante ni yëkkati na ko fi gën ñoo xamaleek sëriñ bi ca wàllu njàngam ba ni muy sose daara yi ak ni mu doon yare ak ni mu doon jàngale ak xam-xam bi mu doon sàkku ak lam daj ci sàkku xam-xam bi di ko def ba toll ci di ñu koy fayal muy jàng muy jàng loolu kenn ku ne xam na ne yitte ju rëy rëy la di sant tamit sëriñ abdu njaay ci leeral yi am solo yim leeral tamit ci wàllu tarbiya ni sëriñ bi doon yare ci daara yi day mel ni nag sëriñ bi bi muy doon sëriñ Touba di nekk xalif général nekk juróomeelu sëriñ Touba jiite yoonu murit toll na ci at foo xamante ne nii waaye juróom wu tedd wa fala la ci ak dem wuy ji boroomam bi mu ñëwee yor yoon wi dafa sos rek ca magam yu baax yu tedd ya nga xamante ne ni ñoo ko fi jiitu Cheikh Mahmoudul mustafaa mi nga xamante ne ni mi nga jërewoon yoon wi ci way jërëm wu tedd ba Cheikh Mahmoudul Fadal Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Khadir mi nga xamante ne nii moo ko sëñ Abdoul Ahad ñoo bokkoon liggéey bi nga xam ndax moom yàggul ci ay loxoom waaye lépp lu sëñ laat liggéey rek moom moom ñoo ko ànd ndax moom moom la bàyyee woon diina ji bàyyee ko lépp ba mu xam naa sëñ Habibou li mu doon wax léegi muy xam-xam bi nga xamante ne ni doon na ko sàkku sonn ci lool booleeg bëgg sëriñ bi dafa daal di jël nag fas yéene ko ni mu doon dundale daara yi di ko dundalee donga yi ci yar ak jàngal xam-xam boobu tamit mu jëfandikoo ko ci yaatal yoon wi liggéeyal yoon wi liggéeyal dëkk bi lim ki njëkk a def nag moom mooy li nga xamante ne ni moom la sëriñ bi bëggoon ba tax mu sos yoon wi muy lislaam diinay lislaam lam njëkk a wax mooy man day lu dul lislaam awma ci ak defar awma ci ak yàq mhm. yamu ci nag waxu ko waxu ko nag yam ci waaye da koo jëfe ba ñëpp tekki seen bët ndax damay wax bis bu set ma ne sëriñ bi bi muy ñëw ci yoonu murit di ko jiite booba day tuubaa li muy rëy rëy rëy rëy rëy alxuraan ya naam bari na fa jàkka yee naam bëri na fa jumaa yee naam bëri na fa njàngum xasida aman na fa waaye kenn ku ne xam ne nag bi sëñ bi ñëwee day loola moom fula ful nañ ko fula ko fula fula ful ba ñëpp xam ko sëñ bi bi muy ñëw fii nekk xalif général de Mouride mën nañ wax ne Touba booba ba wañ ne juróom-ñaari jumaa du ko weesu ndax da nga naan jumaa ju mag yi ne jumaay Gédé ne jumaay eh, yi eh, mm, daa daa daal Xuduus nag jumaay daaru mën a booba daal juróomaay waaye sëñ bi nag bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy yaatal jum yaatal yaatal yaatal yaatal jumaa yi ba bi mu fiy jógee jumaa yi ñuy jullee ajjuma ki Tuuba ay téeméeri téeméeri téeméer la njàngum xam-xam mi ak njàngum xasida mi tamit noonu ak njàngum alxuraan la mu waxoon ne jox leen man ndaw ñi ma def ci ñoom la sëñ bi doon def ci mag ñi tekki na donte yeyewu ma ko waaye ma barkeeloo ko hmm. moom loola rek ci la wéy maanaam boo ko tënk daal day mel ni jiw jiw jiw bi sëñ abi bu doon wax léegi tarbiya nga xam ne maanaam moom ke daara gi ko doon def sëñ bi daa fekkoon ndekete booba aw jiwu la doon waajal ba mu ñëwee bay doon sëñ Tuubaa nag jiw woowee la jël nag yamatul ci daara gi nag waaye mu tasaare ko nag ci mboolem yoonu murit hmm. tey foo dox ci réew mi daayira yi jàngum xasida day mel ni waa daara ja daquñu ko waa quartier bi ñu nekk boo demee waa Tëngéej daquñ ko waa Touba waa Njaareem daquñ ko waa Mbaaw foo dem rek kuréelu xasida jiw jiw woowu nag sëñ bi moo ko sëñ bee ko sëñ bee ko indaale yemul ci loolu nag njàngam alxuraan bi nga xamante ne nii dafa yeman ci ay daara sëñ bi nga xam ne sëñ abi bi da koy wax daaraam gi njëkk ca got nga xam ne ñetti téeméeri dong ak fukk ñett sëñ bi bi muy dem ñaata daara la fi bàyyi ëpp romb na ñaar fukki daara ak juróom te lim bi sëñ abi bu doon wax ne ñett téeméeri fukk ñett daara ju nekk da koy romb waaye yeesu ko nga xam ne sëñ bi mu fiy jógee bàyyi na fi lu mat fukki junniy dong ak ñaar yoo xamante ne nii jàng alxuraan ak tarbiyewu la def waaye yemu ci loolu nag mu yoral leen seen lépp di leen dundal di leen wodd yoral leen tamit seenum faj sëñ bi mooy citoyen sénégalais bi njëkk doon te boobaa léegi xamaataguma ko benn nit boo xamante ne nii jamono jooju maire amuloon communauté rurale moo am benn nit boo xamante ne nii dem na ba xel kom nekk communauté rurale mboolem ña dëkk nga leen jàngal di leen dundal di leen faj di leen takkal soxna di leen ngénteel loolu mooy sénégalais bu ko mas a def mhm. te loolu lépp nag di dundal la fi yi bàyyi woon ak la fi waajuram bu tedd ba waaye nag sëñ bi dafa dafa dafa dafa indi nag xam bi sëñ abi bu doon wax bi mu ñëwee ki dëkk bi nag da koo jëfandikoo ndax dafa ñëw fekk dëkk sëriñ Touba bi di màgg màgg gu yaatu mu ñëw nag ne naa ko organiser ni mu ko njëkk a organisé mooy lan mooy quartier bi Daaru Xuddoos Daaru Minnam Madiana quartier yi da doon dem rek amutoon fa mu yem maanaam quartier yi day dem rek sanc yi bu ñëwee sanc toppaat ca sanc toppaat ca li mu njëkk def nag moom moom bu ñëwee mooy teg plan wu dëkk bi quartier bu ne mu am fu mu ko yemale sos ay quartier yu yees yoo xamante ne ni quartier yu yaat la na ay lu mat cent mille deux cent mille parcelles yoo xamante ne da koo sanc muy ay sanc yu yees yoo xamante ne tudd ay tur yoo xamante ne nii day fàttaliku démb ni sëñ Tuubaa bi nga xam bi nga xam ne bi mu ñëwee dafa fekkan ay tur yoo xamante ni ay turi ceddo lañu woon ak yeneen tur mu ñëw indi ci réew mi ay turi diine turi lislaam Tuubaa Daaru Minnam Daaru Mannaan Daarul Muxti sëñ sëñ Saliou tamit noonu la indi maanaam dafa xool sunna umul xuraa daaru tanzil tayba ngir di ko barkeeloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir waajuram wu teddoo cofeel gi aman ci moom mm. waaye nag yemul ci loolu mbirum dëkk bi nag ñor ko ndax sëñ bi da doon bàyyi xel lu bari am na ki loo xamante ne nii ñu bari bàyyi wuñ ko xel waaye sëñ bi sëñ bi daraan wax ne bi mu koy wax ak léegi mën na naa man na fukki at ak juróom danañ wax ne dëkk bi dey borom ñaan na lim fi ñaan lépp ba sëñ borom may ko ko te kenn nattab li mun na dina ñëw waaye nag faw ñu waajal ko daraa wax ne Sénégal tey fi mu nekk nii nee nañ fukki mi million nit la fukki mi million doomu aadama la sëñ bi daraan wax ne fii ak Sénégal danañ mat fanweeri million ngi doomu aadama nee na Sénégal bis bu ñu matee fanweeri million ngi doomu aadama ñaata murit ñoo cee ñoo cee ñaata ñoo cee doon ay murit lu mu gàtt gàtt dina mat fukki million nga murit wala fukki million nga murit yu teg fukki million nga murit nag nee na bu ñu demee ba bokk bokk benn dëkk ndax nee na Tuubaa murit bu nekk yaag sa mbokk murit yi na ko bokk dëkk booba ndax bu ñu ko waajalul léegi di ko xalaat di ko bàyyi xel bu ñu demee ba boobu fan fan lañ jëm. moo tax dafa nattaat dëkk bi te natt ko natt yoo xamante ne nii natt bu bu bu ñu woyefal la dafa wut ay expert ñu natt plan yoo xamante ne nii plan yu leer naññ la bàyyi xel lépp ci ay réserve ci ay mbedd yum natt ndax bi nga xamante ne nii bëgg naa jublu ki dëkk bi li mu njëkk def mooy titre foncier bi titre foncier bi kenn ku ne miin na sëñ bi di nettali bi mu ko sàkkoo ca ña yoroon réew bi jamono yooya dañ ne ko loolu mënta nekk sëñ bi sax da ciy nettali lu xorom nee na keroog ba ñuy indi tont li di ko wax ne ko mënta nekk nee na maanaam lal bi nga xamante ni ci la toogoon délégation bi ñëwoon di ko wax si lal bi nga xam ne ci la toogoon nga xam ne dafa baaxoo woon bu toogoo ci ab lal dañuy wut ay sees ñu tegal leen ko ñu wër ko nee na keroog ñaari kilifa yi ñëwoon lal bi mu toog lañ toog séq ko ngir di ko wan ne ko maanaam lii ngay wax mënta nekk maanaam wan ngeen maanaam ñàkki teggin gi rek ñëw ñëw toogoon ak moom ci lal bi rek maanaam tontu li ngir ngir waagal tontu gi ñu koy tontu biñ ko waxee ba pare ñu ne ko ah sëñ bi la nga doon sàkku day gis nañ ko waaye nag loolu day moom mënta nekk xool nañ ko xool mënta nekk sëñ bi ne xam naa day nangam mënuñu ko de xam naa ko waaye nangam mënta nekk rek baaxoo ma ko dégg waaye nangam nag ñun mënuñu ko moom xam naa nga xamante ne nii sëriñ bi foofu la njëkk a xeex bu rëy maanaam tey titre foncier Touba bu rëy bii li mu ci daj ngir am ko ba nga xamante ni yàlla dogal na nguur ko soppeeku bañ ñëw natt ko ba mu yaatu lool li mu bëggan lépp ñu jox ko titre foncier bi li mu njëkk a def mooy dafa jël mbedom ginnaaw mbedom cent vingt mètres bi nga xamante ni nattoon na ko dafa boo doxaatee deux kilomètres dafa jël meneen mbeddum deux cent mètres moo xamante ni da ko nat ngir la di ci waajal lii may wax nii ëllëg jël benn compagnie boo xam ne Amérique la nekk dëkk bu ñuy wax Nevada mhm. di compagnie américaine boo xam ne dañoo xarala ci suuf ñu ñu ñu ko benn système boo xamante ne ñu ngi ko tuddee système d'information géographique mu fay leen xaalis bu dul jeex ngir ñu waajal mbedd Touba yi Touba mbedd bu nekk dafa war a am adresse mbedd mu nekk dafa war a am tour mbedd mu nekk dafa war a am dafa war a dañ faa war a prévoir fu hôpital war a nekk fu université war a nekk ba pare mu ne 200 mètres bi tamit ëllëg ak si foofu fi la canalisation yi Touba yi war a jëm foofu tamit fi la reboisement yi war a jëm am na benn ginnaaw bi mu defee loolu ci société américaine boobu am na benn société boo xam ne Hollande la dëkk ndax sëñ bi dafa leen wax dafa leen wutlu ñi gën a xarañ ci wàllu jëmbat garab ak canalisation. Hmm. ñu ne ko ñaari réew de ñoo ngi sut muy réewum Israël ak réewum Hollande sëñ bi taamu bi nga xamante ne nii dafa jóge réewum Hollande ngir fay leen ngir ñu waagal ko liggéey yooyu ngir ngir ngir ngir waagal ëllëgi Touba sëñ bi dafa xaman ne sëñ bi li ko li ko li ko sëñ borom may indi woon nag xam-xam ak expertise ngir waajal ko nag ngir ëllëg fukki miliyoŋu murit buñ naree yewoo tuubaa wala fukki miliyoŋu murit buñ naree dagee màggal si Touba nan lañ leen di waajale ba jumtukaay yi ak yoon yi lépp jàppande te sëñ bi da ci doon xuloo sëñ bi ni mu bëree yërmande ak ni mu bëree ay teggin am na bis boo xamante ne nii dafa dañoo indi plan bi teg ko mu ne ana autoroute bi nar a jógee Ndakaaru booba autoroute amagul de mu ne ana xàll bu mag bi nga xam ne mooy nar a jógee Ndakaaru ëllëg ñu teg plan bi mu ne bi jaar mu ne mu ne autoroute boobu fii lay jaar boobu nag dañ ko wala dañ ko war a waagal ay rond point yu yoo xamante ne nii rond yu mag la yoo xamante ne ëllëg yoon yay jëm Daaru Musti yoon yay jëm foofu lay soqi ko mais ci plan bi am ko ne ko ah fii de sëñ bi xam naa nañ ko toxal ndax fii day ay kër la yoo xamante ne nii ay kilifaa ko moom mu kan moo ko moom kenn ko ñu ne ko sëñ Mbàkke soxna loo moomoom yi ki kii ñu ne ko sëñ diw moo moom lii bi man lii man mi la yónni ci sëñ Mbàkke Soxna doom ne ma boo demee ne ko këram yii dama ko bëgg nangu ndax damaa bëgg a yaatal xàll yi ndax ëllëg suba xàll wu mag bi fa lay jógee sañ Mbàkke Soxna Lo rafetlu ko lool daat koy nangu bég ci ñu nangu ay këram am geneen kilifa gu may yónni kilifa googu mel na ni daal nee na daal dafa jàpp ne daal wax ji samay wax la wax ji daal jógewul ci sëñ bi mm-hmm. wax ji samay wax la waaye ke suba sa ba ñëwee di laaj sëñ bi ne ko dañ ne ma fii yaa ko soxla keroog maanaam gis naa sëñ bi mel melokaan woo xamante ne nii ci ci ci aw ci aw tàngoor. Mhm. ak dal ci kawam ngir wane na maanaam loolu maanaam li muy bëri bëri yërmande li muy bëri bëri teggin li muy bëri bëri sutura loolu moom da koo bàyyoon xel ci luy dundal dëkk bi. lu koy taaral yéen ñëpp yéen a seetaanal seen bopp ci télé bi mu toog wax ne man day su ma sañoon mbedd yi Tuubaa yi nga xam ne dañ ko natt ba noppi. ñu jekki-jekki di fi ay miir ay miir yu rëy ndax dafa natt ay natt yoo xam ne da naan kër gi juróom-ñetti juróom-ñetti la juróom kër la bàyyi mbedd vingt waaye léeg-léeg may kilifa ñeen fukki kër wala juróom fukki kër ñoom ci seen xër dañuy ñëw miir ñeen fukki kër yëpp hmm. wala ñu miir ñaar fukki kër yi ba sakkale ay mbedd hmm. sëñ bi ci boppam dafa gën rajo bi yéen ñëpp ngeen koy fàttaliw mu ne miir yu rëy yi ñu xam ne dañ koy miir ci ci ci ci ci ci dëkk bi gën a nañ ko bàyyi bi tamit am na ay kër yu bari ay parcelles yoo xamante ne nii natt na ko fi mu yaatu lool la ca waran lépp mu fay ko waaye yëg na ne ne am na ñoo xamante ni natt yooyu nga xam ne jublooguñ ci ña ngay dem di ca joxe wala di ca jéem a lijjanti di wax ne seeni tool la woon te nee na nag loolu wër ta demee noonu ndax du yoon te it du du du taalibe te it buñ ko toppee tamit du du du noonu ba tax na ñëpp xam bëgg na ñëpp xam ne loolu da koo natt ngir taalibe jariñoo ko ngir tamit nit ñi dëkkee ko waaye du doon loo xamante ni rek kenn ku ne day ñëw jàpp ko naan samay tool la woon nee na bëgg na ñëpp xamee ko te jëfe ko noonu te jàppale ko ci noonu. boobu loolu lépp sañ bi maanaam ku nga xam-xam ne moom du dàggasante du wax waaye nag bàyyi xel gi mu bàyyi xel yoon wi ak bàyyi xel gi bàyyi xel fu dëkk bi jëm loolu moom sëñ abi bu xam bi mu doon wax ne moom la sonn sàkku ci ba xam ko ba mu ñëwee tamit xam-xam boobu da koy indi ci yoon wi ngir luy jariñ dëkk bi jëriñ taalibe yi